bi mu ko yëgee ñun mënu woon a xaar ban daje vingt et une heure trente ci seesu Bougane ñu waxandoo fa lan war a wax mais automatiquement dafa gën def poste wala ne moom demul. Mhm. lu tax du dem fekk Macky Sall mooy ku ko génne ensemble. c'est ça mu mel ni xeexu loolu dañoo ñurul ñu ñor mooy xeexu askan wi. Mhm. askan dañoo bëgg ni ñu jàpp tëj leen si kaso bi muy dut ni politique ñu génn leen génn Ousmane Sonko si kaso bi génn ñi nga xamante ne ñëpp dañ leen a tëj te jaaru si yoon ñu génn leen ba pare Sénégal mën a jaar si yoon ñun parrainage yi ñu que ñun xam na ni parrainage bu ñu ko sàcc ndax bu fekkoon te ni tey jii comme ministre de la république bu bokk si nguuru mag Sall taxaw na fii publiquement ñi ñi jàll parnas am na si ñoo xamante ni dañoo tibb ci fiche électorale bi loolu ministre de la république bu ko wax xam na lu mu ci xam mais ñun comme ñun sañuñu ko woon def aussi bëgguñu ko def jomm nañ ko def moo tax defuñu ko ñu dem seeti askan wi mais bu ñu seeti askan wi ñàkk si ay millions di millions ñàkk suñu temps liggéey si liggéey boo xamante ne bu mucc ayub la ñëw. kon rab ci ci ci boobule audience ñu gis am na ñu dem. waaye am na ñu demul ñoom ñëpp ñi dem ak ñu demul ñëpp bokk ci collectif bu am solo boobu alors est-ce que du am ak jeexital ci liggéey bu am solo bi ngeen sumb yéen collectif bi ngir xeex ngir ñu mën leen rétablir seen ay droits. déedéet xam nga mën naa bañ a am parce que léegi li problème mooy du am lenn jeexital parce que collectif bi nag. kenn ku nekk yaa fi bàyyi sa bopp parce que ay responsable aussi parce que kenn ku nekk la koy am du collectif moo la koy may dañoo daje si benn combat boo xamante ne ala kon day day jeex parce que la ñuy dem sa yoon parce que fii ak semaine prochaine yëf yi dana tasaaroo parce que kenn ku nekk da ngay wuti candidat boo àndal ndax ñëpp du maase anim si benn candidat parce que am na si candidat yoo xamante nii ànd ak ñoom pour man yàq yàq lañ doon def la mais ñi nga xamante ne am na base politique war nañu toog waxtaan xool candidat boo xamante ne fee jëlee la candidat pouvoir ñu ànd ak moom mais nag li ma far di wax en général fi kuy saw ba pare def fi kuy pour lal moom. Hmm. yaakaar naa loolu tamit il faut ñu bàyyi si xel quoi bañ ko def. mais personnellement lu tax yow demoo ci audience bi. voilà li tax demoo si audience dafa yomb man dialogue bi dama sacrifier sama bopp sacrifier sama jëmm ngir intérêt bi. intérim bokkoon na si Karim Wade ak Khalifa Sall ñu bokk ci élection yi mooy modifié article vingt huit et vingt neuf man maa def proposition bi. ni leen léegi article vingt huit bi ne si constitution bi nañ ko xoolaat parce que man doomu daara la mën na maa liir mën na maa bind waaye da du jaaru tey constitution bi ñu def si képp koo xamante ni mënoo làng mënoo làkk officiellement francais doo jiite réew moo xam ne quatre vingt quinze pour cent dégguñu français loolu laa bëgg mu jóge fi parce que loolu xeeb sa bopp la. parce que am réew kenn mënu koo développé ci làkku jàmbur te làkk du xam-xam te français boo xoolee boo demee Amérique ñaar làkk ñaar réew ñoo ko fay làkk kon yaakaar naa ne ñooñu war nañu ko xoolaat nu ñu ko def loolu moo taxoon sama la ma doon wax si ñaari point yi def nañu ko mais beneen point bi defuñu ko te tey jii ñu ngi ma xañ ma defoon naa ne bu demee dialogue bi dinaa nekk candidat te ñu jubul suñu dialogue bi am na si ñeent ñoo xam ñoom nekk nañ candidat Karim Wade mi nga xamante ni mun taxaa si boppam moom moo weñ loxo lay wàdd ngir mu juba Macky Sall ngir Karim Wade maanaam lépp lu nga ko doon topp ci loo xam jaaru si yoon ñu bàyyi ko mais Macky Sall moo trahir Serigne Mountakha moom parce que Karim Wade nekkul candidat kan si ginnaaw ku dul mooy responsable bi loolu moo lay war ne la dialogue bi mu demoon parce que maanaam ñàkkoon seede mooy li gën parce que bi ñu demee si dañu woon lu mën di am rek ñoom ñëpp nañu nekkaat candidat bu nga xamante def na léegi article yi ngir que maanaam moom Sénégal a am dal mën a am jàmm te boobu Ousmane Sonko du guloon kaso bu fekkente dem nañu tey ji nga xool Sénégal fi mu toll le chef de l'opposition mais honorable li ngay wax ni dafa mel ni ku demoon ci dialogue bi rek da ngay négocier après ñu xool parce que ñu demoon ñëpp ba nga ba nga dama ne ñi demoon ñëpp seen intérêt leen fa yóbbu nag li nga wax li ngay wax li ngay wax ni honorable xaw naa garaaw nag mooy lu wér ku fa dem sa intérêt dafa mel ni dialogue bu bi ñu ubbi woon et puis dafa mel ni day jox dëgg ñi nga xam ne dama ne woon du dialogue bi ku fa dem sa intérêt la fa yóbbu Idriss Seck maanaam lu mu soxla woon mooy nekk chef de l'opposition moom la ko dessiné woon waaw wala déet benn Khalifa Sall lu mu doon wax mooy naa bokk bokk na Karim Wade nan ko nan dindi CREI yi mu bokk bokk na def na ba nga xamante ni ñoom Macky Sall bu ma fa waroon def troisième mandat ci programme boobu noonu mujjul sotti léegi man mi nga xamante maa demoon yóbbu trois point ñaari accepté nañ ko accepté beneen bi kon man la ma fa yóbbu woon sotteegul mais li am solo mooy ñoom ba ñuy d'accord ni même bu ñu demee ci bi ak bu ñuy waxtaan nañu d'accord bu ñu àggee ci parrainage yi ñu def tirage boobu xamoon nañu ñoom. làq nañ seenu xeer ba pare bàyyi xel nag ñi nga xamante ni amuñuy xeer ñoom ñuy wër di foraatu mooy xamoon na ne ñoom duñ dem ci parrain citoyen moo tax ñoom ñu dugal tirage si biir ba pare wut seen i yoo xamante ne day tax ko liste bi gën a bari loolu lépp xam nañ ko loolu moo tax ma def proposition assemblée nationale ni léegi à partir dañuy modifier nga xam ne di jël fiis parrainage da nga def caution 30 millions boo amul parrain yi doon yi la laaj nga perte loolu nag bokkul ak caution bi nga xamante ni moom nga def CDC ngir que maanaam nga war dem si élection ndax loolu moo lay wan la boo ko defee tey ñu si bari duñ dem jëli parce que mënuñu ko ndax koo xamante nii am na si ay camp lay jëli ko fay bu ñu ñëw tax maanaam am nga maanaam mën a dem naan da dem lu dul nga dem jël ay fiches yoo xamante ngay sonal nit ñi naan deux cent et quelques candidats yoo xamante ni kenn ku ne xam na doon kon loolu moo lay wan la élection présidentielle dafa dafa dafa war a sérieux mais Macky Sall moo yàq moo yàq maanaam si su président assemblée nationale ba jóg ku jóg rek dafa ne mën ngaa nekk président de la loolu lañ fa war a jëlee il faut que ñu xoolaat def benn transition boo xamante ne un la kuy mënti gagné tamit dañuy séentu lu wér ndax man du ma ànd koo xam du gagné mais ki may àndal dañuy séentu lu wér bu ñu gagné dañu génn jot na politique yëpp suuf bi dañ ko réformer dañu jël alalu askan delloo ko ndaw ñi jël ndaw ñi wutal leen ay liggéey def formation defaraat jikko yi doomu daara jox leen cër bi leen war jox ci ki nga xamante ni mooy. très bien alors lettre lettre bi ngeen bind pour ñu rétablir leen seen ay droits la euh, naka nga jàngatee li agité ci euh, sur la li ngeen bëgg te leen rek moo leen ñor ah, xam nga loolu li koy wax que nag am na si classe politique yoo xamante ni. amuñu sax amuñu sax base politique. Mhm. ci média bi ñu nekk di wax loo xamante ni pour yàq xelu askan wi ñooñu noonu Sénégal lan te li ñuy wax du dëgg parce que tuumaal gor xamante yow la nga koy tuumaal du dara te doo ko tuumaal sa ndey doo ko tuumaal sa baay loolu lu ñaaw la te am na ñu koy mhm. ku nekk xam nga xam nga ki man sa baay. il faut que ñu bañ jàpp ni ñëpp jàppaleen ay workat wala ay traité wala ay non non non non non man bu dund askan du ma sama alal mënu ma koo lekk ci sama dund askan wi tax may sonn ñu may saaga ñu may tëj kaso nangu samay kër nangu sama lépp lan moo ko war a askan wi bu ma neexoon def ni ñoom mais defuma ko mooy ku mel noonu da ngay liggéey pour askan wi ay nit taxaw fële yoo xamante ni amuñu benn base politique kenn xamul benn bureau de vote bu mas a taxaw ñu lay boole si ñoo xamante ni même batu ko bi loolu amee li nga xamante ni moo si am. mooy lettre bi bi ñu ko bindee ku ne ku ne gis nañ ko mooy amul benn yoon bu ñu demande rapport élection amu si. c'est ñaareel bi ban demee si président Macky Sall ña fa demoon bin pare wax nañu ak presse bi tudd ñu fa rapport élection Macky Sall xamal ne leen lii ngeen di wax war nañ koo régler parce que xamuma ko woon nii. Mhm. reconnaître loolu. reconnaître na aussi tamit maanaam dutini politique yi jàpp daan fexe ñu bàyyi leen ci audience bi loolu baaxul. Ah, le président moo wax loolu. wax na ko tey et pourtant def na ay sorties ne ah, musul am détenu politique. ci ci kaso yi Jomaay Fay da nga ko gis ñu bàyyi ko parce que président wax na leen ni leen Jomaay Fay daan fexe maanaam nun ko bàyyee moom nag yoru sisis waaye dana fexe ay avocam ak procureur de la république bu avocat yi demandé liberté provisoire ñoom duñ def opposement loolu kay mooy dañ ko bàyyi loolu baaxul si baaxutam pour ñu def audience ce que ñi nga xamante ne jàpp na ni Jomaay mooy seen candidat ñoom mën nañ ko lijjanti si loolu tey jii maanaam Jomaay bu nekkee génnee di campagne ak grâce collectif bi moo tax mu génn et pourtant ñoom nee nañu donte signataire lañu à travers Moustapha Sarré que bokkuñu ci boobu lekk. <laughs> en tout cas lettre bi ñu bind li am solo li am solo dama koy faral di wax gis nga. Mm. nit booy wax ci borom kër ngay waxal doo wax ay surga te foofu Ousmane Sonko moo fay moo fay borom kër gi. ñun Ousmane Sonko mooy suñu nawle li ñuy def defuñ ko pour nit Ousmane Sonko tax ñu koy def parce que Ousmane Sonko dañoo jàpp ne liggéey ni si réew mi liggéey boo xamante ni waruñu ko bàyyi di ko seetaan. tey jii kii nga xam ne dafa bokk si moom yu Bassirou Diomaye man xaw ma ko miinu ma ko mais li am solo mooy warul nekk candidat ñuy publier conséquence mu nekk si kaso bi continuer di fa toog comme kuréel gi fexe na ba dem ba président la république jox leen garantie wér ni leen moom ay avocat ak ay procureur am bu avocat Diomaye fay déposé woon suba demande libre provisoire bu ko siis bi accordé dana génn mais kooku ndamul coalition ndamul euh, collectif la kon yaakaar naa ne du ndamul maanaam coalition wala mu ndamul waa Pastef parce que bu doon ñoom doo nga Diomaye Faye du génn parce wax ju ñaaw génnewul Diomaye Faye si kaso bi tey jii démarche bi waa collectif bi def malgré que ñoom ñu ngi leen di ngàññ waaye résultat bi si jëlee njëriñu Sénégal te ban fa demee Macky nee na leen xat na xataay goo xamante ni yéen na ngeen ko waxee mosu leen a d'accord ñu daaw ñu dàq élection yi man mi d'accorduma si mais koy ku bëgg fu mu fanaan ak lan moo fi jar nag ñuy wax ñoo xamante ni lu tegul fenn la ak di manque respect ay kàndaay yoo xamante ni ñoom lañu ñu man mënu leen ko li ñu man seen bàyyi mënu ko ba pare ñu taxaw di leen fontoog di wax loo xamante lu tegul fenn la loolu nañ ko arrêté. très alors gis nga réew mi bu yàqoo. yenn ñi nga xam ne dañu yor seen micro amul lu ñu wax lu dul bëgg bës moo ko yàq. alors il faut que loolu nag mooy jikko yi nga xamante ni mu wër Sénégal parce que li am si a am feneen ah Sénégal lu neex waay wax lu neex waay def mënut a am feneen bu la neexee nga toog si plateau wax n'importe quoi wala nga saaga koo xam ne yaa ngi si ginnaaw ordinateur mhm. gor soo xamante ni ba muy liggéey yow sa baay liggéeyul nga taxaw wax ko lu bon loo xamante ni pourquoi foo ko teg ngir lu neex benn nit bëgg ay bës wala ay vie mais na nga loolu ah très euh, ngeen di xeex ay principe démocratique loolu mooy moo sos collectif bi est-ce que mën nañu xaar collectif bi euh, cheminer dem ba euh, élection présidentielle présidentielle euh, bi nga xam ne euh, ci la ñu tàbbi beneen bi mooy euh, naka nga jàngate yeneen candidats yi bokk ci opposition bi te fekk suñu leen ci xeex bi. waaw mais ñooñu am na si droit xam nga collectif bi ku mu neex nga nekk fu la neex am na si ñoo xamante ne bokkuñu si am ñoo xamante ne rakkaale wuñ leen ay candidats yoo xam dañ leen wala ñu ngi si xeex bi mais li ma jàpp rek mooy képp koo xamante ne xeex démocratie ak maanaam bu doon yow ni nga war taxawee buñ ko defee keneen da mais kenn ku nekk bu fee sa intérêt moo la ñor kenn mu tafal boppam il faut que mbooloo mooy tase ànd kenn pour ñu fal ko loolu boo xoolee buggaan démb ci réunion bi lan la wax mooy collectif bi nekkul collectif boo xamante ni dañuy taxaw naan diw la ñuy choisir wala diw